milliard du fi génn. am kay du am problème ñëw fi moom du am problème quarantaine quarantaine quarantaine yow da nga gaaw a mer ah. ma nga nga bu baax. Ah, man kay maa koy xool. waaw li li si bi laa wax yi nga bind yëpp di yoo xamoon nga ko. waaw baax na. moom la dee Fall daal man daal man daal man daal moom daf ma bëgg di saw rek te jour mu bëgg ma di saw. chaque jour Fall waaye tey doo si dara tey boo xefee de kër gi maa fi jénn ba balaa client yi ana ginaar yi maam ginaar waaw waaw yéen lépp noppi na fu mu toll nii lépp noppi na. waaw lépp lépp lépp noppi na. ginaar amagul woon léegi de. Eh, ana ana faal yow. waaw damaa gis faal yow déggoo li ma la wax xanaa faal bu ma ko gisoon kon ba tey heure bi fekk na ma tëjoo moom doo ma gis. ah bonjour. Euh, euh, oui ça va ça va. fàtte nga waay ça va ça va bien ça va bien. Macaron comment vous allez. oui ça va je vais bien. bien bien merci. bien oui ma quarantaine. barke Seydina Mouhamed dama laa nar a gaañ. bul ci yéy bul ci yàpp. <laughs> non dama lay wax rek bul ci yéy bul ci yàpp. dama lay wax Macaron. comment vous allez bien merci. les affaires ça marche. tout a bien kay. oui j'ai en train de vous chercher toi et euh, l'autre vieille là Fall. oui où est lui où est lui. Fall et euh, euh, là. c'est c'est Mbal c'est Fall c'est Mbaye. da ngay fen nekk Fall mën na nekk Mbaye man man Mbaye kese la. attends c'est l'autre c'est l'autre c'est l'autre vieille là. Uh-huh. lui autre Mbal Bawal. il a fait l'or de Baol-Baol. Qui m'a taillé ici, il a parti de Baol. Si j'entends bien, Fall, il est parti. Oui, il est parti, oui. Donc moi, j'ai amené ici une convocation. Oui. Parce que ça fait 5 jours que je ne vois pas mes poulets. Donc, je vais donner mon argent. Ah, c'est ça la convocation. tu vas répondre à la police. Non, attends, attends. Non, je ne peux pas attendre ça. Non, non, il faut, que tu veuilles attendre. Parce que entre, Macron et Macky Sall, il, y a une chose que. que en cas de business en cas de business. il y a pas d'amitié là-bas. ok xoolal 40 loo def nii. ok yow laay wax 40. donc dama ci jàpp mu gën a gaaw rek. lan mooy gën a gaaw man dama ne la damay dem. père déglu rek par père Fall dem na yow yaa fi des te xam nga da ngay dem. solo moo gën a gaaw rek. le vieux là Mbaye. prends ça. prends ça prends cette convocation. non non instant yii kay mënaguma kaa prendre non fa foog ma indi yow yow yow 40 mënoo maa jàppale si kii waxal li muy dégg man mënuma. fay mais yow may man ay réer nga ma def. Hmm? man nu ma lay jàppalee ci kii. si tu as refusé de prendre cette convocation. oui je vais appeler tout de suite le je vais appeler tout de suite à la police. non non non non prends cette convocation et tu vas répondre. demain. à quel commissariat. commissariat de Guédiawaye. Guédiawaye. oui. non donc jox ko plainte bi jox ko. jox ko plainte la borom plainte baa ngi. non pour lan. ko kóolu kóolu Père Fall baa ngi. kii bi wax ni. kaay wër sa bos kaay. La prochaine je t'ai dit, ah. cet là c'est un vaurien, c'est tu ne crois pas. oui tu ah. ah. non actuellement je le crois. non non non non. il a pris tout mon argent. oui quand je viens ici au Sénégal je connais personne ici c'est lui que je connais ici. oui léegi nag il m'a fait tromper. il a pris mon argent. Ah. il m'a trahi. Ah. la la fois passée je te l'ai dit c'est un vaurien c'est un bordel cet homme. léegi nag c'est lui qui a qui a volé les portables il a volé le le le poulailler. Même, même il a envoyé les Mbaye, le, le père oui. aussi. Ah, oui, parce qu'il est bien ici. Donc tu vas accompagner avec cet homme, elle va répondre à la police. Non, non, non, a non attends, attends, attends, rek. Oui, attends, attends, attends, attends, attends. Góor gi. Waaw. Euh, euh, quarantaine. waaw yéene kaay. xam yow laay ni ëppal baaxul. waaw lan la. tey dafa baax. waaw ci lan. lii lan la téléphone. li lan la téléphone téléphone la ni jaay Fall miin naa ko. bi nga ma xamee ba tey. li ma la jariñ moo ëpp téléphone. man lan laay doyee téléphone pour sàcc ko. yow lay bi. mën naa la may lépp téléphone. muy bi dama ko jënd. te sàcc du daal. lii téléphone Père Mbaye la danga koo na nekk. tubaab bi ñaata téléphone la defar. téléphone bi. bu fekkee da ngeen a bëgg téléphone mën naa génne samay puces ma may leen ko. waaw yow moom yow. man loolu du ma sàcc dalul mu xel yow. non loolu loolu du ma boole ak yéen deuxièmement. waaw da ngeen ma accuser si lan da ngeen ma accuser Sadio. si lan li plainte la. ngeen yoreel ma sama ay ginaar commande ginaar moo ma waroon def. ñëw di ko jë fay ma mais. sama xaalis da ngi nii ma indaale. waaw yow eh, eh loolu góor ñi ngay wax dañoo ñàkk fu la gi nga sàcc amul sax pour wax yow sàcc nga. léegi yow da ngaa eh, fay wala fayoo. yóbbu ko kii la. yow kii kii la nu am lu ñuy waxanteel kii nii avancé woon nu xaalis. ñun mun ñun booy Macron mi lan am lu ñuy wax amee du yow. dégg nga dégg nga wax. waaw léegi léegi booy Macron. waaw ñun dañu noo fen nu fen la. ñu sàcc ñu sàcc la ki ñu fen mooy borom ginaar yi. Eh, eh, eh. ñun ñun sàcc ñu fen xoolal quarantaine ka. quarantaine booy bu déggoon li may wax zone si créé problème dañu am problème de. te gis nga. dégg nga lu ma la wax Père Mbaye. Père neexoon dimbali. Euh, daanaka ferenkulaay na. lan la teel nii ma expliqué la bu baax. si lan. gis nga nit. waaw di nga dëkk ak unk. mu lay saw. nga koy wër te doo ko gis. ci biir yi wax nag feeñal na boppam. Hmm. dañ ñoo sàcc. yéen ñett dëkk sàcc dafa am ci kër gi. mu ne dañ ñoo sàcc. mës ngeen bi ngeen fi nekkee ba tey mës ngeen dégg quarantaine ne sama jaaru réer na wala sama benn pat daal réer na. Oh. yaa yaa faal yéenay réer le. yow jàpp ñu la fii sàcc jàppaat la sàcc. yaa faal yéenay réer la ne man li ma bëgg mooy. kóol bi jëmm nga. mais monsieur on va régler ces problèmes à la police donc on y va. non non on y va on va régler ces problèmes à la police ah moi je ne pas. oh léegi ah, ma ma ma ma